waaw xam nga loolu c'est l'avenir qui nous dira xam nga tey ji nii loo ci mën a rek mooy constater. Mhm. on constate que y un président ki a été élu parce que l'autre qui devait être candidat était empêché. Mhm. loolu constat la. bu doon euh, le premier ministre Ousmane Sonko n'était pas empêché moom mooy doon candidat au Pastef. Mhm. te peut-être moom la mais bu ñu fàtte yàlla aussi. kii muy tànn moom moo ko xam te Bassirou Diomaye Faye la décidé tànn. donc ci kaw loolu mën nañu constater que am na lu fi xew am na nu ñu ñëwee ñoom au pouvoir am un président qui est là qui comme ñenn ñi ni ñu koy waxee qui disent qu'il c'est un président par procuration am fi un premier ministre qui a mené tous les combats politiques. Mm -hmm. mais lu ñu leen ñaanal mooy ñoom ñu déggoo maintenant. c'est à eux de donner raison ou pas à ceux qui disent ça. Mhm. loolu nag c'est l'avenir qui nous dira mais les les premiers actes posés. Mhm. déjà la nomination d'Ousmane Sonko comme premier ministre. Ah. ça dire que dina ko jege il sera au cœur du pouvoir benn la ñaar aussi on a eu à écouter le président s'exprimer wax na benn yoon ñaari yoon euh, avant ñoo ci gouvernement bi naka nga gisee loolu. c'est c'est une suite logique c'est-à-dire euh, un duo la kii kii moo nekkoon candidat euh, mais kële la ko gënoon yéene. Mhm. gagné na ils veulent gouverner ensemble maintenant. il faut pas qu'on ait une guerre des égos mhm. cest il faut que am ku ci wàcc ah ça parce que li ci garaaw mooy kii c'est le président de la République et l'autre c'est le président du parti c'est le président de la <laughs> République qui a l'onction de Dieu mhm. parce que yàlla moom la tànn qui a l'onction du peuple parce que moom la sénégal yi jox signature moom mu jël denk ko premier ministre Ousmane Sonko kii nga xam ne moom mooy mantooram mhm. léegi lu na ak il doit le entre <laughs> guillemets donc loolu moo fi am donc kenn ci ñoom il faut que on à l'épreuve du pouvoir mais kenn ki warul doon le président choisi par les Sénégalais à l'épreuve du pouvoir il faudra qu'on respecte l'orthodoxie républicaine mhm. ñu xam ni que président bassiru Diomaye Faye moom la ñu tàbb mhm. te constitution am na ay pouvoir yu mu ko jox premier ministre moom la ñu nommé am na ay pouvoir yu ñu ko jox que égo wu kenn ku nekk ci ñoom bu mu empiété ci lii constitution bi. bu weesoo euh, Abdou Diouf ak euh, Senghor wala Boun Abdallah ak Macky Sall les premiers ministres ak leur président ça n'a pas toujours été voilà ça gis nañu exemple Idrissa Seck ak euh, Ablaye Wade gis nañu exemple Macky Sall ak Ablaye Wade aussi gis nañu Amadou Ba ak Macky Sall même si bon. dañu doon nëbb que ne ak quelque chose n'allait pas mais ça n'a pas toujours réussi Dia ak Senghor boobu moo gën a gën a graaw donc tey jii nii xëy na yàlla musal ñu si dualité au sommet de l'État a existé partout nem nañ ba ne le premier ministre c'est c'est euh, nu ñu koy waxee sax c'est c'est c'est une il est sur chaise éjectable à tout mm-hmm. moment n'est-ce pas donc mais sauf que fii ñoom ñaar ñoo xeexandoo xeex bi ba yegg fii mooy ñoo bokk gis-gis li ma la wax mooy dualité mën na am bu dee chacun bu dee Ousmane Sonko nee na ah yow yaa fi nekk ngir man dualité mën na am bu Bassirou Diomaye Faye ne ah yaa ma fi indi waaye man maa. comme que Wade avait dit au yaa ma dimbali ba ma yegg fi waaye man la sénégalais fa ku nekk tey fi nga on va clairement vers un clash te seytaane dafa bëri doole. Mhm. lu ñuy ñaan ñun au pour njëriñu Sénégal mooy que loolu bañ am. Mhm. mooy que ku nekk des place bi nga xam ni moom la la constitution bi jox nga bës sa xol. ngeen liggéey ak gouvernement bi mais y des choses qu'on va observer parce que tey jii nii euh, euh, le premier ministre c'est lui qui gouverne parce que mais c'est le président de la République qui définit la politique de la nation mmh. gouvernement bi premier ministre la ñuy liggéeyal directement ouais. on va voir à l'épreuve du pouvoir est-ce que y aura cette entente là bi nga xam ne dañ leen ko dañ ko gis ci ñoom que est-ce que dina mais justement le gouvernement euh, à part quelques exceptions